waaw dal leen ak jàmm mbokk yi ci xibaaru tàggat yaram bi bii nag moom moo doon suñu deuxième vidéo ci euh, bés bi euh, mu yemoog tey le 25 juillet 2023 xibaaru tàggat yaram dañ koy commencé euh, première période bu Bayern na diggante ñoom ak Manchester City actuellement première mi-temps Manchester City moo monnaie 1 0 mais suñu international sénégalais mi ngi ci banc bi première période bi nag ñaari image yi ñoom ñoo ci gën a marqué mooy le coffrant de de roi Sané bi nga xamante qui barbe la dal Dougoul mais il a tiré un magnifique euh, coffre donc le roi est à la 18e euh, minute mais a euh, match bi Manchester City mon mot contrôlé Mané li nga xamantene moy li nga possession du ballon mon moko et tout donc ci après coffre à la 23e minute ñi nga xamantene les Citizens dadi ibi marqué par James Makat donc mon marque li nga xamantene moy par la suite image bu Sadio Mané bi tamit marqué na ma à la 23e minute après bii Bayern bi Sadio ci banc bi la démarré comme dima len ko waxé li di waral que Sadio actuellement mi ngi dund moment yu metti mi ngi dund moment yu difficile fofé ci Bayern li ñu koy wax rek moy mu gëna a gaaw quitter bi le club club bi nga xamantene tay ji je pense que ne li ñuy jéem yëpp mooy humilier la mais mënuñu lo humilier parce que li nga def ci football ñëpp gis nañ ko le Sénégal Coupe d'Afrique jëlal Liverpool li nga xamantene moy Ligue des champions jëlal li nga euh, Premier League yakarna ku la de humilier rek mais euh, mënu ko rek nga club bi ñancho ñun ñi ñi sa ñun Sénégal bu metté ñun dañuy taxaw inshallah ci champion d'Afrique bi di Ligue Badra Fati le jour de Casa Sport euh, quitter na Ligue nonu Champions, ci nga <clears throat> Euh, club bobo di euh, tout puissant euh, mazambé donc il la dem signé na fa donc lu tolok ñaari saison ki nga xamantene moy maintenant Aliou Badra Fati le champion d'Afrique avec Sénégal donc signé officiellement fofé ci club bobu dit mazambé donc fofé le championnat bu Congolais balay doxal ci as ñaari saison yi ñu jëm ci jamono bobu Raúl Jiménez signé na officiellement ak club bobu di Fulham gannaaw bi mu quitté li nga xamantene ne Wolverhampton donc wa Wolverhampton dina jot lu toog loo 5 virgule millions euh, d'euros donc ci li nga xamantene moy mooy transfertu Raúl Jiménez mom Raúl sax accepté na benn accord contrat bu tolo ci ñaari at également mu prolonger le tolo 10 dix mois supplémentaires donc bu deux ans et lolu euh le euh, signé ak ñi nga xamante ñoy wa waa Fulham ci jamono bobu ki di Younous Massa Massa Moussa Younous Moussa donc l'international euh, américain donc mom nak euh, actuellement li mu bëgg moy quitter club bobu di Valence bu tëri ci Milan donc mom d'accord na ak ñi nga xamante ne AC Milan donc euh, ci walu condition personnelle mais ba léegi club bi di Valence ñom ñoo neungul gënaaw bi wa Milan défé li nga xamantene euh moy seen première offre dañ ko rejeté mais depuis un mois ki di Younous Moussa lamu bëgg moy dem fële ci Milan AC té lolu wa Valence xam nañ ko bu baaxa baax donc euh, ci jamono bobu euh, ñi di wa Liverpool donc ñak nañ seen joueur bobu di Jordan Henderson Henderson quitté na fi nga xamantene ne euh, mooy euh, Liverpool dem fële ci Arabie euh, Saoudite ci club bobu di Al Ittihad donc fofu le rejoindre wa Liverpool jot nañu tolok 12 douze millions de livres sterling ci transfert ki nga xamantene ne Jordan Anderson, vers al à ghana bi mu fait 492 mars 39 bison 14 passes décisives 8 trophées dont un Ligue des Champions Jordan Henderson quitté Liverpool donc un légende de xamante ne def na ne Liverpool donc mon fait quitter quitté des bon wax bonne chance rek nouvelle aventure bi mu jël li la leen indiloon way leen di commenter